jàmm ngay xeeñ fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu assemblée nationale gannaaw waxtaan bu yaatu bi nga xamante ni ñetti groupe parlementaire yu assemblée nationale yi amaloon nañ ko fa nga xamante ne moom mooy ca bureau Abdou Mbow ndaje moomee nee nañu Abdou Mbow bu benn bokk yaakaar ay Daffé bu yeewee askan bi ak yi nga xamante ni moom mooy lamin Thiam bu wàllu ñoo ko doon nag amal ñun ngi doon nag waxtaan ngir nag fexe ba tension yi wàcce ca diwaanu assemblée nationale xool jàmm dellu soir fa naka la def ba soppi li nga xamante ne moom mooy règlement intérieur bu assemblée nationale ngir kii nga xamante ne moom mooy de politique générale am janoon ñi nga xamante ne ñoom ñooy député yi loolee nee nañu nag jamono jiile njiit bu assemblée nationale di Amadou Mame Diop ci ay loxoom la des dafa war a nag convoqué li nga xamante ne moom mooy bureau bu conférence des présidents ngir nag ñu lancé bile procédure les échos yéen moo xam ne bile xibaar ci xëtu tayam yemook alxames fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juillet atum 2024 nee na nag lu jëm ci li nga xamante ne moom mooy section extraordinaire boobee jot nañu sax convoqué ay doomi aadama yoo xamante ne daañu joxe date bi ñu ko faskee ni nag amal proposition de loi bi nga xamante ne député bii di Cheikh Abdou Mbacké Bara na fi Diallo defoon nañu ko loole nag jamono jile ba léegi silence lañ ko dégg ak tekk tekkaarool amul benn réponse boo xamante ñaari député ca mbir yooyee ñu àddu ci leneen di discours bu màgg ba nga xamante ne député bii di Guy Marius Sagna bokk ci coalition Yewwi Askan bi amaloon na ko ci cour bu CEDEAO nee nañu nag loolee jamono jile fondateur bu Africa Jom Center bi nga xamante ne moom mooy Alioune Tine mu ngay félicité bu baax a baax kii nga xamante ne moom mooy Guy Marius Sagna nee na nag gàcce ngalaama ki nga xamante moom mooy Guy Marius Sagna ay doomu Togo yu bëri woon nañ ko téléphone ngir fexe nag ba am numéro téléphone. téléphone ki nga xamante ne moom mooy Guy Marius Sagna ndaxte dañu bëgg ci discours bu màgg ba nga xamante ne def na ko ca parlement bu CEDEAO li ni mel di ab déclaration boo xamante ne Alioune Tine na ko ci ab boo xamante ne mu ko doon amal janoo ci ak suñu natango yu Sénégal 7 nee nañu nag Togo boobee ba léegi amul benn possibilité ngir nag am li nga xamante ne moom la ñu duppee moom nag moo nekk benn réew kott bi nga xamante ne mu ngi jokk ci kuréel gi li nga xamante ni moom mooy CEDEAO te amul li ñu duppee alternance jamono jile nag jot na ngir nag ñu dëpp carte gi li nga xamante ne moom mooy ay coup d'état ak ay li nga xamante ne moom mooy institutionnel kott la ñu fa nemmeeku problème bi nga xamante ne CEDEAO jamono jile am na fa muy kuréel nga xamante ne dafay xeex ak ak yelleefu ñi nga xamante ne dañu jokk ci kuréel googu li nga xamante ne moom mooy dëkk boobu di Togo euro tax na sax ba doomu Togo yu bëri découragé ci li nga xamante ne moom mooy doxalinu réew ma atum 2005 ba léegi ñu nga ko fay nemmeeku Guy Marius Sagna li ni mel mu taxaw ci pencum CEDEAO daal di ko fay nag wax loolee daf koy rafetlu bu baax a baax di ko tàccu di ko félicité fu nekk ci àdduna bi ñu ngi koy woo rawatina ci dëkk boobee nga xamante ne moom mooy Togo société civile bi ñu koy woo politique yi itam ñu ngay laaj numéro Guy Marius Sagna ngir félicité ko nañu ci moom loolee di ay kàddu yoo xamante ne kii nga xamante ne moom mooy Alioune Tine moo ko daal di xamle discours ba Guy Marius def nekk na loo xamante ne lu symbolique la te nag kenn dootu ko fàtte li nga xamante ne moom mooy détail itam mu ngi koy rafetlu bu baax a baax la nga xamante ne def na ko mu ngi koy summil am mbaxane di ko félicité loolee Alioune moo ko daal di xamle. jërë ngeen jëf mbokk ñu doon teewlu ci Rewmi TV loolee moo fi yesandi woon ci xibaar ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. gërëm di leen wax nag bu leen fàtte benn yoon abonné ci seen chaîne bi nga xamante ne moom réew mi ngeen bës li di cloche de notification bi bu boobaa nag da ngeen jot bépp vidéo boo xamante ne seen chaîne bi di réew mi dugal na ko jërë ngeen jëf